ñëw tontu question orale euh, ak même écrite yu bàyyeekoo ci député yi teewal askan wi à l' assemblée nationale. Hmm. Euh, jéem nañu tontu lu ñu man présente euh, man am na information ci xam seen opération yi ñu doon def ci wàllu wàññi dund bi donc visité nañu vingt six mille boutiques comme ni ko PM waxee ci ñoom am na six mille six cent trente et quelques yoo xam ni convoqué nañu leen pour jubbantiwaat leen. mais yooyu information yu askan bi war a xam la boo ko xamee mënoo ko bañ a rafetlu fi ma àndul ak moom euh, te bu fekkoontoon ni génnewul réponse am doo ci am looy ànd ak looy ñàkk ànd muy applica applicabilité bi ci soixante dix huit pour cent loolu ça pose problème te loolu disponibilité bi ñu am pour tontu askan bi tontu député yi teewal askan bi moo tax ñu mën a am xibaar boobu ba mën a am lu ñuy ànd ak ñoom ak lu ñuy ñàkk ànd ak ñoom monsieur le premier ministre xëy na loolu mooy information bi mu jot ci papier. mais boo demee sur le terrain euh, bu ñu waxee euh, applicabilité bi dem na ba ci dix huit soixante dix huit pour cent dafay xaw a poser tuuti problème ceeb bi fa mu nekkoon la nekk bu fekkee sax yokkuwul vraiment ci ay gox yu wuute ay dëkk yu wuute fii ci dakaar suukar bi itam la même chose loyer bi dafa yokk loolu ñun ñëpp constaté nañu ko ci dakaar dafa yokk mais wàññeekuwul. donc euh, joxe ci xibaar lu ci am solo la parce que même li ñu yëgul sax ñoom daf lay permettre nga mën ci def benn taxaw seetlu pour yëgal leen ko loolu benn la ñaareel bi ci des euh, bari na ay question yu ñu posé waat ci mel ni littoral bu Guédiawaye nga xam ni bari na ay coow yi ci am barina ay fitne yi ci am gouvernement bi génn tontu ci dafa am solo euh, bu weesoo génn tontu gi à l'Assemblée nationale aussi député yi ñoom laay interpellé parce que question yi ñu bind am na solo lool mais est-ce que question yëpp moo méngoo c'est-à-dire que que ñoom def nañu genre questionnement ci askan bi xool yi askan bi dund pour jël loolu yóbbu ko à l'Assemblée nationale ñoom ñoo représenté askan bi mais est-ce que question yëpp wala amul yeneen yu ñu woon a yóbbaale waat parce que opportunité la boo xam ni faaw ñu wax lu bëri bëri loo xam moom la askan yu jànkuwante parce que askanu Sénégal fi nekk nii dañuy souffrir suñu député il ñu xamal leen ni envoyé wu ñu leen assemblée nationale pour ñu dem di xuloo di teesante di xeex di ŋàññante encore une fois li tax ñu am sañ-sañu nekk foofu ci pencum ndawi réew ma parce que ab institution la hmm. du ñu nangu kenn ku ko décrédibiliser lu dul ñoom ña fa nekk xëy na donc itam ñoom lañuy éviter di saaga ñuy incarner suñu ay institution hmm. à l'Assemblée nationale parce que ab institution mënu la protéger yow ngay décrédibiliser beneen institution loolu askanu wi yónni wuñ leen ko parce que ñun féetewuñu ma sàmm nii ma demba dañuy veiller ci ñoom ñaax ñëpp muy ñi ne ci gouvernement bi ak ñi nekk à l'Assemblée nationale boo amee sa règlement de compte politique mën nga ko doxalee neneen mais bu ko ñambaas ci question yi la askan wi yónni pour nga joytu leen ko à l'Assemblée nationale gis nga gis nga li dajaloo lépp ci importance bi nga xam ni sortie yi mel noonu dafa war di am man jàpp naa ne lu jaadu la premier ministre ak gouvernement wam di génn ci jamono yu mel ni parce que ministre de l'élevage war na wax ci tabaski gi yéen ñëpp xam ngeen ni xar déjà déjà ni ñu toll dafa cher ba jéggi dayoo est-ce que quantité bi ñu soxla daañu ko amul la det est-ce que dañoo nga xaar bu def conseil interministériel pour informer Sénégal yi wala du woon opportunité démb à l'Assemblée nationale pour ñu wax ak Sénégalais fu ñu toll ci waajtaayu tabaski bi di ci des ma tutul weer. déjà il faut ñu rappeler Mansour que ne Amadou Ba jamono ji moom moo nekk ministre de l'élevage. Mm. très bien ci fàttali donc doon na jaadu démb député yi yóbbaaleel ñu question boobu à l'Assemblée nationale. moo tax ma ni waroon nañu wax askan wi balaa ñuy dem benn ñaareel bi ci des nawet baa ngi jige si nawet mun na taw sax tey wala suba. Hmm. am na sax dëkk yoo xam taw na wala Sénégal. Hmm. député yi lu ñu xam ci jiw bi lu ñu xam ci nan la ñuy séddalee jiw bi est-ce que jaaduwul woon ministre bi yor lu jëm ci wàllu agriculture Aly Ngouille Ndiaye génn itam wax xam fan la ñuy toll parce que bu ñu fàtte nii ci côté mois de mois de février jàpp mars jiitu réew mi réceptionné na. benn nombre boo xam ne ci wàllu euh, équipement agriculture euh, équipement agricole kenn xamul nu mu toll ay tracteur ay xeetu machines yoo xam ni mu ngi soog am Sénégal ñëpp rafetlu woon ni Sénégal loolu ñu réceptionné doomu bu ñu ko exploité ci anam gu normal bëgg ak bañ bu fekkee nguur moo ko saytul boppam Sénégal dina am autosuffisance alimentaire man benn yoon boobu laa mos a bi Macky Sall toogee ba léegi di annoncé autosuffisance alimentaire man jàppoon naa ne ay caaxaan la mais bi ñu réceptionné matériel boobu njiitu réew mi réceptionné ko laa ne bu ñu ko awalee fi ñu ko war a awalee dinañu am autosuffisance alimentaire te en tant en tant que doomu baykat xam mbay di gis yeneen réew yi équipement yi ñuy am pour mbay Sénégal boo ko amee mun nga mun na dal xel. Hmm. mais ban suuf ak ban gestion foofu la question bi nekk waroon nañu leeral askan ni jumtukaay yooyu nan lañ ko séddalee est-ce que dañ ko séddalee fuñ ci na ma bay. lu ñu ci digg askan wi pour autosuffisance alimentaire ba nga xamante ni dootuñu jëggaani leneen parce que ci monde bi ñu nekk El Amine bi doon na fekk béykat soble di joytu ak di jàmbat parce que dañuy béy ba noppi seen soble di nëpp ci àll bi ak di yàqu ren ren déggoo ko xam nga lu moo tax parce que li ñu doon importé moo ñëwatul parce que ñi doon bay soble la ñu béy da a doy dañu koy téye seen dëkk pour ñoom di ko consommer loolu moo tax suñu béykati soble yi ñoom itam di mën a jaay année bii nii dimanche bi passé maa ngi yendu ci ay toolu béykati soble ñoom laa jëlee xibaar boobu noonu mais ci kanam tuuti ni yeneen réew yi di téye seen ay soble noonu la noonu la ñuy téye seen ay ceeb noonu ñuy téye seen ay basi noonu la ñuy téye seen ay bele seen i ay li ñuy defaree pain nu mu tudd seen bele. donc bu njiit réew mi dalalee équipement yu toll noonu war nañ ci wax ci assemblée nationale wax ko député yi ñu eggale ko askan wi. dafa am ay points yu am solo moo tax ma ni génn gouvernement bi baax na mais député yi itam war nañuy laaj askan wi. di leen nemmeeku di jokkoo ak ñoom di xam li askan wi bëgg pas nekk assemblée nationale askan wi bëgg nañu lii te yàlla xam nañu bougé woo say bureau loolu itam nan nañu leen de te na ñuy dénoncé nguur gi lañ leen di dénoncé député Dóor amu fi de booy layal askan wi day fekk nga xam ne askan wi dund lan la Birahim Touré boo ko seetloo euh, démb euh, gis nañu débat bi nga xam ne moom moo nekkoon au centre en tout cas du du débat maanaam sujet nga moo nekkoon au centre du débat nga baal ma euh, mu nekk cette élection présidentielle alors que comme ni ko Mansour waxee am na ay priorité yu gën a important yu gën a jàmp jamono jëlee lu jëm ci wàllum jàmm mbay mi lu jëm ci wàllum càmm gi lu jëm ci wàllum sanitaire est-ce que tous ces volets là nekkul woon priorité par rapport ak li nga xam ne mooy jëm ci wàllum politique jamono ji waa mais jamono ji <laughs> quoi qu'on puisse dire donte yële yëpp yi nga wax priorité la hmm. mais dafa am benn priorité boo xam ne bu lijjantikuwul yeneen yële yëpp du am benn njëriñ xam nga mooy lan s'il y une tension s'il y a une euh, une mu am ay coow am loo xam ne ay taxaw muy mbay mi muy sàmm mi muy leneen du mën a dox parce que politiciens yi fexe nañu ba coow li ñu concentré ko ci ñoom tey par exemple manifestation bu amee euh, sàmmkat bi wala baykat bi wala keneen ak keneen mais du ko tal parce que ña ngay taal toolam wala ña ngay yàq euh, euh, kiyam mm-hmm. nu ñu koy weeti ay ay lépp ñu ngi koy yàq mm-hmm. parce que coow am na ci wàllu politique donc politique bi faw ñu lijjanti ko mm-hmm. mais sànq maa ngi koy wax ci tubaab dama bëgg dellu si peut-être avec des nu ñu koy weeti lu lu lu concret ci gouvernement premier ministre sànq maa ngi naan constitution bu Sénégal moo ko jox obligation moom ak gouvernement ñu dem assemblée nationale. Hmm. Euh, ci journal officiel bu euh, république du Sénégal bi indi euh, yenn si yi ñuy wane ñu ne constitution bi buñ ko dalee article quatre-vingt-un hmm. ak yeneen yi ci topp dañ la naan le premier ministre et les autres membres du gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale. Hmm. et ses commissions ils peuvent se assister par des collaborateurs mën nañu euh, jël ay collaborateurs muy euh, euh, maanaam directeur wu nangam wala nangam ci benn ministère ñu ànd ak ministre bi wala premier ministre dem tontu ji ci assemblée nationale. Mhm. ñu ne nag ci article quatre-vingt-cinq bu ñu weesoo leen députés yi peuvent poser au premier ministre et aux membres du gouvernement qui sont tenus qui sont tenus d'y répondre des questions écrites. ñu ne la les députés peuvent poser au premier ministre et aux membres du gouvernement qui sont tenus d'y répondre des questions orales et des questions d'actualité les questions et les réponses y afférentes ne sont pas suivies de vote ci constitution la ñu ne c'est euh, ni premier ministre yow Amadou Ba mi fi nekk fi ñu toll nii. Mm-hmm. ak say membres gouvernement mm-hmm. député Guy Marius Sagna donte bokk leen camp wala député Ahmed Aïdara donte bokk leen camp question orale question d'actualité question écrite bu ñu leen laaj vous êtes tenu di répondre tenu mooy lan mooy obligation léegi nag kañ nga ciy répondre ndax euh, day jël temps ndax euh, tey lay doon ndax dans trois mois dans six mois mais vous êtes tenu par la constitution di répondre donc euh, exercice su dem ci assemblée nationale ànd ak sa gouvernement yaakaar na li nga def ngóora la non constitution moo la sant bañ la fay teg hmm. premier ministre ñu gis rôle premier ministre rôle gouvernement ak rôle li nga xam ne moom mooy pouvoir législatif Euh, Mansour bi nga wax sànq ci wàllu respecter les institutions mais man jàpp naa ni yow mi institution exécutif yow yaa respecté wul beneen pouvoir bee di législatif xamul tax boo ko respecté woon ni ko constitution bi waxee yow sa bopp nga ñëw ànd ak sa gouvernement ne ni chaque trois mois dinañ fexe ñëw waxtaan ñëw wax leen li nga xamee ni moom la ñuy jot a liggéey mu am benn pouvoir wala benn benn droit de regard boo xamee ni à la kuliyal législatif ba koy am ci exécutif bu fekkoon ne respecté ngeen ko mhm. yéen exécutif ci lu ci kaw législatif di ngeen fexe ba ni ngeen ko waxee ne ni chaque trois mois wala chaque un mois wala chaque deux mois la ngeen war a dem tontu ji ci ay question d'actualité ci mhm. ñëw wane ni fii lañ toll di ngeen dem def ko xamul tax ñaar ñi donte séparation des pouvoirs am na mhm. mu am benn lu ñu woowee imbrication ci seen liggéey yow euh, premier ministre ak sa gouvernement yow président de la république ak ki nga fal muy premier ministre ak ñi nga teg ñi nga xam ne ñoom ñooy ay membre ci gouvernement am mais li ngeen di doxalee pour wax peut-être kàddu Youssou Ndour doxalal li ngeen di doxalee xaalis bi ngeen di dem di ko lijjanti di ko di ko dugal dugal fii lii dugal fii lii jënd lii defar fii defar fii ku koy voté assemblée nationale hmm. moom mooy voté sa budget li lay tax a jóg li lay tax liggéey yow légis euh, exécutif législatif moo lay jox ci wàllug euh, loi. vote ci mooy loi yëpp. Mm. Mhm. moo lay jox sañ-sañu nga mën a dem euh, mën mën ko doxalal mën ko lijjanti. Mhm. Mm. ndax di nga dem yow donte yaay président ak sa gouvernement ngeen dem États-Unis yëkkati mille milliards jox leen. Mhm. du la moom moo ko dee. boo ñëwee mille milliards yooyu da ngay dem assemblée ne leen am naa mille milliards. assemblée ne la waa d' comme am nga 1000 milliards ñun la ñu bëgg mooy na 1000 milliards yi jëlal 10 milliards yi dugal ko ministère nangam jëlal nangami milliards ñu waxtaan ci plénière rek yeneen ak yeneen commission xool na ni ku nekk lii ngay soxla waxtaan ci ba juboo ba ñëw voté ko ñu ne loi bi génn nañ ko muy loi de finances rectificative wala loi finance initiale wala loi bu mu mën a doon. Mhm. waaye ñun assemblée ñun ñoo koy voté ñun assemblée ci ñun ngeen di ñëwaat donc mhm. léegi yéen tamit. comme ci ñun ngeen di ñëw boo leen ñu laaj nan laay jëfandikoo xaalis bi mhm. mais ñun bu ñu leen laajee ñun assemblée en tant que député du peuple pas député d'un parti ou d'une coalition ou autre mais député du peuple bu ñu leen laajee yéen gouvernement mhm. tontu leen ma ci euh, ñu ngi jëm ci nawet lan ngeen fas yéene def ci mbënd bi wala bu fekkee ni mbënd amoon na nan ngeen di def ba dindi loolu yéen gouvernement mais comme le di la constitution donte si mois Guy Marius Sagna qui pose yow gouvernement tu es tenu par la constitution donc c'est une obligation mm-hmm. que la constitution met sur toi yow gouvernement pour nga ñëw tontu ma mm-hmm. ci ay question écrite question orale question d'actualité ñaata question lañ fi jàllale sànq maa ngi joxe l'exemple de Mamadou Lamine Diallo bu tekki yaakaar naa ni c'est le champion des questions écrites orales euh, presque kes tekki la ko tuddee kes tekki question kes tekki moo nekkoon boo xoolee sa mail pratiquement chaque mercredi ou jeudi tu as une question d' bu jóge woon ci député Mamadou hmm. a l' euh, ñu nekk fa nekk luñ fa askan mais peut être seen bopp lañ fa nekkal parce que yaa ngi sànq ci bilan ah, Macky Sall. Hmm. mais euh, démb euh, ay militants yu benn bokk yaakaar yoo xam ni ngi woon ci ci salle bi doon yuuxu turu président Macky Sall ba finalement loolu dafa merloo waaye waa yeewee askan wi. est ce que hmm. bu boobaa nag man ku may njëkk blâmer jox ko carton rouge day doon ki nga xam moom moo yore la police de la séance mhm. muy le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop ku yaru la baax na nangam na euh, et tout mais am na loo xam ne moom moo moom prérogative am la mbiram la fexe ba assemblée nationale lañ ca war a waxtaane ak nañ ko war a waxtaanee la ca bokkul du ci bokk mhm. mais politisé bi am assemblée nationale loolu sax date pas d'aujourd'hui Le député, euh, certains te diront, euh, je suis député du peuple. yaakaar naa kàddu boobu est-ce que du ci maître El Hadj moo ko daan wax. ñeneen ñi ne noo député lañu assemblée nationale waaye député askan wi lañu. Mhm. waaye bu ñu taxawee nii déjà camp bu nekk da ngay wane ni man camp bi laa far. Mhm. dootul rôle député bi kese kese kese mais di nga ko jëlee rôle tamit politique. Mhm. ah ñaata député ñoo fi taxaw naa ni man euh, Macky Sall ma fi teg. te pourtant da dem élection yoo xam ne askan wi ñoom ñoo la jox eh, li nga xam ne moom mooy sa mandat député. Mm-hmm. dañ la élire kii wuñu la nomewuñu la comme député dañ la élire askan wi la fi teg. Mm-hmm. nga dem représenter sa benn gox représenter benn commune représenter benn département. Mm-hmm. représenter représenter mais askan ñoo la fa teg. mais malheureusement une fois à l'Assemblée nationale. pas tous nag am na ñoo xamee ne il reste député du peuple. ñoo xamee ni loi bu ñëwee la. suñ maam Abdoul si Sy Dabakh yàlla suñu borom yokk leeram doon wax yéen député yi lu ñu leen indil assemblée nationale loo ngeen war a voté mm-hmm. euh, donte bul jàpp ni man la Gueye laa la wala diw laa àndal mm-hmm. waaye na nga xool ndegam njëriñu askan wi mu ngi ci mm-hmm. mooy yow député à l'assemblée nationale tu n'y vas pas pour euh, représenter un parti politique wala une coalition wala une personne politique mais tu y vas pour représenter mais des population mm-hmm. li tax ñu teg la ndaw lan la ñuy wax pencum ndawi réew mi mm-hmm. ndaw nga dañ la yónni. Mm-hmm. ñun ñoo la yónni ñun askan wi. waaye ba demee suñu yóbbante mënoo ko joxe. mënoo ko wax mënoo ñu fa tag toogal. jafe-jafe sénégalais mënuñu ko saafara. waaw de am na am na ñoo xam ne moom loolu taxu leen jóg sax. yenn saa daal ñu ñëw ne ni di wane ni député la ñu ci assemblée nationale. mais déjà député bi nga xamee ni boo ñu ko falee député jox ko kaat kaatam ak euh, nu ñu ko weeti Eh, bon d'essence am carburant am ak nangam mm-hmm. nangam eh, téléphone am ligne am ak yooyu mm-hmm. bañ ko falee ba defal ko écharpe bi ba takkal ko eh, pince bi mm-hmm. si ci la def kii vitre teintée ci otom téléphone am mu jël chauffeur am wala benn garde jox ko nekkool kan la ku may woo nekkuma fi ci la njëkk déjà def barrière digganteem ak population yi nga xamee ni pourtant c'est lui le représentant ci assemblée nationale. Mhm. fa ñuy voté loi yi fa ñu war a waxtaanee. Mhm. ëllëgu askan wi fa ñu war a waxtaanee teyu mhm. askan wi. mais c'est pas tous bien entendu mais am na député yoo xamee ni ba ñu faloo nekk député ci leen bu doon sama genre yi sax ñoo amoon benn relation peut-être euh, amicale ou humaine ou personnelle mais ci gën leen di gëj a dégg dootoo leen woo bu jot leen boo tasee ñoom nag ñu ne si xoolal woo nga ma de mais damaa jàppoon wala woo nga ma de gis naa danaa la rappeler ay Lamine. waaw euh, mu ngoog ak tàggat yaram. waaw tàggat yaram càllalum laataa ñuy.